moom xam naa d'ailleurs maa ngi maa ngi jégalu ñëpp dawa hmm. di jaale euh, waa Ngor waa Sénégal gépp hmm. si xale bi fa ñàkk bakkanam muy aji jàll hmm. mais li xew foofu mooy li ñu xaw a wax fii rek li ñu xaw wax fii si ay jikko parce que en fait dañu jàppoon gendarmerie comme nawle di lu mu ñëwee Ngor ñu dalal ko en 2006 jàpp ne lu war a lu nekk war a nekk la mhm. ñu dalal ko jox ko fu mu nekk am na sax kuy wax ne dañ ko loué woon mais mu mosuñu ko loué newuloon kër jàmbur mhm. mu ngi nekkoon si centre socioculturel bi bu ñuy li ñuy wax centre socioculturel mu symbolique mhm. mu am lu ñu xañ foofu mu xañ ko jeunesse bi si wàllu yëngu-yëngu wàllu cosaan ak aada si ma mu xañ parce que ba mu fa nekkee bu gudduloon bruit mu nekk fa pendant dix-sept ans dix-sept ans dix-sept koo xamante ne da ngaa déporoon pour trois mois départoon pour trois mois nga mujj fa ba 17 ans. waaw du dëgg 17e année bi nga déclaré na inondation daf lay la nga génn di dem ñu dabu ji la ne la kaay waroo dem lépp si teraanga. Hmm. du dëgg loolu mooy histoire bi. Hmm. si noonu nag si waxtaan boobu si lañ taxawee ba am nu bëggoon ñu taxawee ñu bëggoon nu mu gën a yànj gën a rafet malheureusement dañuy bës rek gendarmerie am beneen kanam beneen taxawaay mel ni machine. bañ waxtaan bañ ànd commencé gazé nit ñi c'est comme ça que bi ngeen leen daboo ba ñu ñëwaat. waaw yéen man à ce que j'ai entendu day ngeen leen ne bañuñu gendarmerie parce que loolu pour suñu sécurité waa Ngor la. ñoo leen jëli léegi dafa am noo xam ne ngeen bëggoon a régler parti bi ngeen def ko ngeen def ci lii parti bi ngeen def ci gendarmerie du woon loolu exactement. déedéet dañoo mhm. ñu ñëw ñoom dajeek ñoom sa parking bi ñuy wax nii bi andi coow li mhm. ñu war faa nekk provisoirement. Mhm. te li ñuy wax nii yëpp dafa am ay vidéo parce que bañ ko defee. ba nekkoon ah, waroon nekk provisoirement. provisoirement. ok ba pare si. boobu ñu joxoon leen joxoon leen ay site cité ay lieux. Mhm. ne leen a ngi nii ñu ne boobu baax place ngi nii ñu ne baaxul ba fi ñu woon à côté fi ñu ne woon doon nañ ma def maximum deux cent mètres carrés. mais à côté bu fu xaw euh, relevé wu ñu jox leen fa lu mat plus de trois cent mètres carrés pour brigade ñu ne foofu baaxul aussi parce que inondation bi naan ku am moyen pour tabax xam nga foofu doon na baax ñu ne baaxul stratégiquement euh, ñu wax leen ci biir dëkk bi foo xamante ne ñañ ko doon abal centre la newoon pendant le Covid seen équipe bi foofu lañ doon jóge foofu lañ doon basé wu ñu jox leen foofu foofu def na quatre cent à cinq cent mètres carrés ñu ne stratégiquement baaxul parce que bu ñu jotee yéen mën ngeen ñu fii nekk nañ fi dix manif mosuñoo xelaat dem foofu mosul am donc gendarmerie daal di ñëw ne euh, ñu jox ko jox ñàkk yeneen yi mu jël note léegi bi loolu yëpp weesoo ñu ne léegi fii na fi toog ne provisoirement parking bi parce que la commune a un projet la bas yàlla loolu def délimitation ñun ñu def video def déclaration pour xamal population yi gendarmerie bi ngeen jàppoon ne day dem dematul hmm. jëli nañ ko ba ñëw na ba jubboo nañ ba taxaw nañ sampal ngeen fii moment hmm. dinañ fi def ay euh, pour pour une brigade provisoire mais ce gendarmerie là moo xëy daal mel ni machine ne léegi bëggatul brigade caserne la wax fii la koy defee mu neex ñu mu naan. bëggoon jël yi yëpp jël tànneef yëpp six mille mètres carrés koo xamante ne euh, départ bi yaa ngi doon wax euh, euh, cinq cent mètres carrés c'est comme ça que ça s'est passé. ñu xëy benn dimanche ñu xëy di indi ay matériel matériel bi jaaxal ñëpp parce que matériel boobu du bon pour pour ay conteneurs. Mhm. on s'est posé des question questions yu bëri dëkk bi jóg daje foofu pour laaj leen lii lan la lan ngeen di defar parce que buy buñ ba ñu weesoo si déposer matériel bi dañu xëy rek commencé di gas parking bi comme kaña buy gas. Mhm. mu mu jaaxal ñëpp léegi dëkk waa dëkk bi ne am na lu xew soit autorités yi dëkk bi ñoo jaay affaire bi gendarmerie wala am na. parce que même autorités yi mënuñu expliquer moo xew. Mhm. muy autorité administrative coutumière ku nekk kenn mënul wax kenn lan moo xew. les jeunes on interpelle. pour mu ñëw taxaw. amul benn kayit bu mu yor malheureusement amul benn kayit bu mu yore amul benn kayit bu mu wone parce que euh, l'autorité administrative dafa ñëw interpeller que si si loolu ana sa titre de propriété ana sa autorisation ana sa ana sa mu ne miit duñ wax alors léegi quand même par contre si départ bi dañu ñëw ne. c'est un titre d'État qui appartient à l'État donc ñoom ñooy état dañu ñëw jël hmm. pendant ce temps ñun bokkatuñu état ñun ñi nga xamante ne ñooy le peuple ñun ñi nga xamante ne ñooy la commune de Ngor bokkatuñu état parce que gendarmerie réflexion am noonu la demee alors noonu ñu ñëw pour waxtaan maire ñëw le chef de village jaraaf bi euh, les les les religieux ñun ñëpp ñu ñëw taxaw xale yi nekk ne la à côté gendarmerie mu ne xale yi bu ñu génnul parking bi du waxtaan ak kenn mais war nañ mën nañ waxtaan te xale yi duñ fi di ñu ne non da ngeen génn si biti maire bi nag mais man maa leen di dalal yéen du ngeen yéen a may génn man maa leen di dalal. Hmm. c'est comme ça que c'est par hmm. ñu ne duñu gé duñu waxtaan tant que xale yi génn génnuñu et puis comme noonu la demee léegi barricade wu daal di commencer rek charger nit ñi gazer nit ñi gazer autorités yi si kanamu xale yi c'est ce qui a mené la réaction de